jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen sunu mbokk auditeurs yi ak euh, sunu mbokk auditrices yi yéen ñi nga xam ne saa su nekk yéen a ngi déglu rajo bi di réew Rewmi FM 97.5 kàddu gi di bàyyi ko fii ci Sodida ci taax mi ñu duppee El Hadji Mamadou Lamine Bara Mbacké Falilou samedi bu jot euh, bu 15 heures jotee nag ci waxtu wi jàpp 16 heures ñuy ànd ak yéen ci seen émission pencum réew mi Abdou Khadre Seck di ci ànd ak yéen Adama Diallo moom moo nekk ci wàllu euh, technique bi euh, ginnaaw bi ñu leen jaajëfalee bu baax baax ci euh, koor gi tey nag ñu daal di dellu am mbégte daal di invité ministre Moussa balde muy ministre bi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllum agriculture ak équipement rural maanaam wàllum mbay mi moom la ñu invité tey fa yéene waxtaan ak moom ci ponk yu bare bari ndax xam ngeen nawet bi léegi tey mu agsi ak woppi Covid 19 bi nan la nara demee lu jëm timit ci notification. information yi nga xam ne war na ko jox opérateur semencier yi fan la toll loolu lépp danañu ko daal di euh, waxtaanee monsieur le ministre euh, Rewmi FM maa ngi lay nuyu. jërëjëf maa ngi leen di nuyu di leen sant di seen euh, maanaam auditeurs yëpp. ñu lay jaajëfal nag di rafetlu bu baax a baax nag sa teewaay ak wuy ji bi nga xamante ni wuy si nga ko invitation bi ñu daal di nag dooree waxtaan wi lu jëm ci woppi Covid 19 xam nga Sénégal am nañ nag lu toll ci 1000 cas. ka communautaire yi tamit euh, ma ngi bëri lool ci réew mi mu mel ne nag euh, jàngoro ji ma ngi wéy di law njiit réew mi sax fan yi ñu génn wax ne nag ne képp koo xamante ni daal yaa ngi wéy di jalgati li nga xam ne mooy état d'urgence bi ay daan dina lalu ci sak euh, ndodd monsieur le ministre mille cas am nañu ko lan moo ci sa xalaat waa waa jërëjëf c'est actuellement am nañ junni cas mm-hmm. ci suñu suñu réew mm-hmm. am nañu aussi juróom-ñeenti nit ñu ñu ci faatu. Mm-hmm. ñu ngi leen di jaale ma di jaale seen famille yëpp quoi. ñi nga xam aussi ñu ngi ci hôpitaux yi ñu ngi leen di masaw eh, ñu ñaan rek aussi nit ñi ñu continuer di fagaru continuer vraiment di fagaru que bi ñu amee maanaam mbas bi bi mu duggee ci dëkk bi ba léegi eh, président de la république ak gouvernement teral nañu ay pexe ba eh, yàlla def na en tout cas waxuñu ni layul mais ñu ngi koy continuer tuuti et puis de toutes les façons boo xoolee quand même ñii ñu am ñu gaañu fii ci Sénégal euh, néew na naam bari na boo xam nga même bu dee benn nit moo gaañu loolu déjà bari na mais bu ñu ko comparé ak yeneen dëkk mun nañu wax ne euh, statistiquement ñun ñoo leen tànne loolu bokk na ci stratégie li ñu teg euh, pour en tout cas continue jàngoro yi di féliciter aussi xam nga ne premier mai dafa waroon dafa dafa dafa doon xumb ci Sénégal maanaam ay défilé yu mag yi nga xam ne centrale syndicale yi dañ ko doon def nit ñi vraiment laje déposer ay cahier de doléance loolu yëpp mbas bi daf ko tere actuellement donc ñu ngi vraiment féliciter aussi centrale syndicale yëpp yi nga xam ne comprendre lañ loolu euh, daxal bépp manifestation euh, yi di déposer seen cahier de doléance comme ni ñu ko doon defee ñu xam ne loolu yëpp mbas mi moo ko waral mbas mi dafa en tout cas laal suñu civilisation sax daf ko laal parce que du ñu def défilé mais du ñu def siyaar euh, mosquée yi tëj nañ ko avion demutul dikkutul euh, loolu moo loolu dafa waral nga xamal nit ñi ne vraiment mbas mi am na doole loolu moo tax ñu war a gën a fëgëru vraiment xeex ko pour mu bañ a ci suñu dëkk. Euh, monsieur le ministre euh, danañ ñëwaat ci li nga xamante ni nag euh, moom mooy mbas mi Covid 19 bi waaye yow nga nekk ministre bi nga xamante ni yow lañ dénk wàllu wàllum mbay mi yan xalaat moom nga am ci mbay mi ak Covid 19 bi jamono ji te ñëpp xam nañ ne nawet bi ma ngi ma ngi waaj a dugg. waaw dëgg la bu mbas mi ñëwee dañu gis ne économie àddina yëpp dafa taxaw maanaam gis ngeen ne temps yi sax pétrole jaratul woon dara États-Unis dañ doon maye te pétrole doole bu mu amoon ci àddina bi donc mbas mi dafa vraiment yëngal économie àddina yëpp loolu moo tax bi bi affaire bi amee président de la République dafa yëkkati kàddu nee ni mbas mi dafa ñu war a woon ne programme yi yi ñu tegoon pour auto suffisance alimentaire maanaam mbay mhm. lu ñuy dundee dañ ko war a dooleel mu instruire lu ñun ministère de l' agriculture ñu fexe ba programme boobu ñu am résultat le plus rapidement possible en tout cas li ñu santoon ñu def ko ñun tamit ministère de l' agriculture euh, euh, bi ñu bi ñu jëlee instruction boobu dañu tëral suñu programme pour hivernage d' abord parce que xam nga comme li ñu ko waxee nawet bi mu ngi bëgg a jot déjà dañu def programme dooleel suñu programme mbéy pour euh, nawet bii di ñëw président de la république d' ci gunge ñu maanaam yokk na vingt milliards ci suñu budget par rapport à li ñu amoon daaw pour jënd. jiw engrais ak leneen yokk na ci vingt milliards ñun lu ñu bëgg ministère de l' agriculture mooy bu ñu heure bi ñu ngi xeex mbas mi mais nawet bi mu ngi ñëw maanaam ñu am production ren ci ci ci ci hivernage bi ba nga xam ne bu yàlla defee ñu génn ci mbas mi ay au plus tard quand même ñu ñu espérer nawet bii di jeex Sénégal génn ci am production alimentaire boo xam ne mun na am dootuñu jéggaane lu ñuy lekk. loolu mooy suñu programme ñu ngi ciy liggéey. Euh, monsieur le ministre kon euh, vingt milliards yooyu nga xam ne état bu Sénégal ñoom euh, njiit réew mi fas yéene ko génnee wala génne na ko dugal ko ci li nga xamante ni mooy mbay mi loolu est-ce que jàpp nga ne bu ñu fa jugee moom fi la Sénégal di doxee dootul jëggaani fenn lu mu dundee. en tout cas gis nañ ne léegi xam nga ñu man yàgg naa wax ne bay dundee programme autosuffisance alimentaire dañ ci warul euh, am ay dañ ci war a def maanaam genre unité nationale parce que yàgg nañ leen yàgg nañu wax ni ci suñu discours yi boo boo boo comme mun nañu def euh, jëlaat suñu discours génnewaat yàgg nañu wax ne gis nga Asie nga xam ne ñoo ñuy jaay ceeb ñu ngi dem a dem a di seen population mu ngi yokk déjà mais aussi seen développement mu ngi yokk mun na am ay quelques années dootuñu am béykat yu bëri yi nga xam ne pour dundal seen dëkk mun na am ñu euh, egg ci jamono boo xam ne ñoom du ñu jaay ceeb ñooñ nag bu ñu jaayul ceeb te ñun bu ñu béyal lu ñuy dund dañuy am jafe-jafe loolu moo tax programme bi mu am solo tey mbas mi dafa gën a déggal loolu loolu moo tax président de la république euh, mu mu vraiment que programme autosuffisance alimentaire bi léegi il faut que mu antu loolu moo tax ñun li ñu woote mooy béykat yi nañu fagaru déjà respecter consignes ñi nga xam ne loolu la ministère bi wax pour ñu bañ a am jàngoro bi parce que xam nga ñun si biir dañ doon sonal déjà ci nawet buñ ci yokkee mbas mi day xaw a compliqué donc il faut vraiment ñu fagaru ñu xamal leen aussi Sénégal ci ñoom lañu yaakaar ci ñoom lañu yaakaar loolu moo tax ren mbéy mi vraiment il faut que ñëpp jóg taxaw euh, gis nañ ni aussi xale yu bari ñu nga doon nekk fii Dakar di daan seen doole ñibbi nañ seen lekk ñoo yëpp ñu ngi leen di woo pour ñu jóg taxaw ñu béy bay bi presque genre jaar lay doon parce que euh, bu dee déwén dañuy nekk fii du ñu am lu ñu lekk te du ko mën a jéggaale xam nga loolu maal daytaan la donc il faut pas que ñu jël ko à la légère. waaw waaw il faut que ñëpp taxaw. ñu ñu béy bu bëri ñun daal jël nañ suñu matuwaay yëpp pour def semence yu ay semence ceeb yu doy daaw par exemple pour exemple sept mille tonnes de semence certifiée lañ joxoon ren dinañ ko yóbbu ba douze mille. Ah, ren ba ñaata ren ñaata ngeen ko yóbbu. dañ koy yóbbu déjà j'ai notifié ba dix mille mais bëgg naa ko yóbbu ba douze mille tonnes de semence certifiée. léegi euh, monsieur le ministre danañuy ñëw ci euh, li nga xamante ni tey moom mooy euh, lu jëm ci wàllum semence yi waaye sànq yaa ngi mel ni luy lancé benn appel ñi nga xam ne ñooy monde rural bi waaye li ñu gis mooy état d'urgence bi am na ñoo xam ne nekkuñu jamono ji ci seeni dëkk te mënuñu faa dem ngir transport interurbain bi nga xam ne dakkal nañ ko loolu nag lan moo ciy pexe. waaw mais xam nga euh, ban boo xoolee loolu xëy na euh, ñi mu daal quand même matul en euh, pour cent de sénégalais monde rural bi xam nga ñoom ñu ngi en général seen rek ñu ngi ci maanaam heure bi kenn terewul nga jógee sa région dem sa région. et na néew nañu ñu waroon jóge peut-être ci région wala dema ci benn région te ñu nekk ay béykat xëy na loolu dafa dal ay nga am na ay commerce la ñuy def wala leneen ak leneen donc loolu moo tax ñun gëm nañ ni yàlla def na d'abord monde rural bi Euh, ñu ngi ñaan muy muy muy wéy euh, dégguñu euh, maanaam ay ay kaa yu bëri ci ci ci ci dëkku dëkku dëkku dëkku monde rural yi loolu dañuy ñaan mu continuer loolu moo tax dañu war a fagaru aussi dañu war a continuer di suivre vraiment le ministère de la santé wax ñu wàññi seen dem dem ak dikk ci diggante bi ak ñu wàññi pour que nawet bi fekk leen ci jàmm ak salaam. d'accord te yàlla dafa def ne. Uh-huh. ma ma daanal ci loolu météo ren. xam nga daaw météo dañ ñu waxoon mois de mais lañ ñu waxoon ne nawet bi dina am retard te du bari ndox ci ci ci ci ci démarrage bi reen météo dafa ne euh, maanaam nawet bu baax lañu nar a am ci Sahel yépp euh, donc ci Sénégal dina dina teel commencé te war na am ndox bu bëri te war na mun a dem ba ay mois d'octobre donc loolu aussi béykat yi dañ ko xam ñu xam ne ren. macha allah mën na am nawet bu baax donc nañu góorgóorlu ñu béy. d' accord euh, monsieur le ministre ba tey euh, ñu wax ci li nga xamante ni sànq tudd nga vingt milliards yi nga xamante ni. Euh, dañ ko yokk ci budget bi. waaw vingt milliards yi waaw vingt milliards yi ñu yokk si budget bi. Mhm. Euh, est-ce que ñi nga xamante ni tamit ñoo nekk ci xam nga boo xoolee tey Covid 19 bi secteur yëpp da dañu day dafa dafa impacté. Mm-hmm. tey lu jëm ci mbiru agriculture noonu maanaam ci baykat yi ndax xam nga am na baykat yoo xamante ni liñ dencoon jiw wala dara mën nañ koo jaay euh, dundee ko est-ce que euh, force Covid 19 bi euh, am na ci lu ñuy jël dugal ko ci ministère de l'agriculture wala vingt milliards yi ñu yokk ci budget bi la. d'abord vingt milliards yi ñu yokk ci budget bi la pour maanaam vingt milliards yooyu ñaari ci ñaari mbir la ñëw benn bi mooy vingt milliards yi dañuy permettre. daaw par exemple téeméeri junni euh, tonnes la ñu defoon ci engrais ren dinañ def téeméer ak genn wala téeméer c'est à cent cinquante mille tonnes engrais la war a dugal ci ci monde rural bi euh, vingt mille euh, vingt milliards yooyu aussi xam nga daaw man dama wàññiwoon subvention moom moo tax par exemple prix engrais dafa yokkoon ren président dafa na ci vingt milliards yooyu naa fee boo yokk sama loxo ci subvention bi wàññil leen prix engrais engrais bi mu nekk prix bi mu nekkoon loolu ci la bokk ci ndogal boobu ci la bokk deuxièmement xam nga gerte ren ñëpp gis nañ ni prix gerte xëy na mu ngi kilo bi mu ngi woon trois cent francs donc opérateur yi gerte ñoom dañuy gën gerte dafa cher donc dañuy dañuy dañuy ñan si duñu opérateur yi. waaw. ñiy jaay semence. waaw. lu ñu jëndee semence bi daaw ñu ko jëndee ren parce que yéen ñëpp gis nañ ni ren gerte dafa cheroon. alo waaw d' accord maa ngi dégg. donc prix bi dafa yokk foofu. donc béykat bi aussi dafa waroon yokk loxoom pour am gerte. pour am pour mun a jënd semence bi loolu aussi ci vingt milliards lañ jël yokk subvention prix gerte. yokk subvention du moins semence gerte yi pour que béykat bi li mu doon jënd kilo bi daaw maanaam cent soixante cinq francs kilo écrémé pour semence loolu la ko du ci yokk et donc loolu moo tax aussi ma ne la ceeb. dix sept mille ton lañ dugaloon ci monde rural bi daaw subvention cent pour cent réel dina dem ba onze mille wala douze mille tonnes yoo xam ne tey dugg ci monde rural bi ñu mun ko ci te subvention bi cent pour cent la. donc loolu moo tax dimbal bu rëy la boole ci ci un million cinq cent ménages cinq cent mille ménages yi nga xam ne jot nañu dimbal euh, président bi mais monde rural daf ci bokk bu baax a baax. ah jërëjëf euh, mbokk yéen a ngi déglu Rewmi FM seen émission pencum réew mi tey nag ñu invité euh, ministre euh, Moussa Baldé mi nga xam ne moom lañ dénk wàllu mbay mi ak équipement rural sànq si sa biiri wax monsieur ministre yaa ngi wax lu jëm ci mbirum engrais ndax Sénégal ma ngi Sénégal li muy produire ci engrais ndax doy na ndax tamit daanañ gis ne am na engrais boo xamante ni tey amaana bitim réew la doon jugee te gis nañ dem beeg dikk bi si jaww ji léegi jafe-jafe yi mu am ren nan ngeen di def ba engrais bi mët doy. ba engrais bi dafa am ñaari pàcc pàcc boo xam ne ci Sénégal lañ koy defar xam nañu société ICS ñooy defar engrais boobu. Euh, man en tout cas waxtaan naa ak direct seen directeur général mun ngeen ko woo nee na amuñu benn problème pour produire li ñu leen doon laaj li ci des mooy engrais boo xam ne dañ koy jéggaane loolu aussi ministre de l'agriculture jot nañu proposé yoo xam ne nit ay nit nga xam ne dañ jee jaay engrais stock bu ñu am ëpp na fuuf ñun lu ñu bëgg jënde donc loolu ñun en gis ñu foofu benn problème bu bu bu mën a jógee ci côté ba tey euh, li nga wax ci engrais bi euh, am na solo ñu wax ci ci li nga xamante ni tey moom moo jëm ci euh, notification yi ci opérateur semencier yi fan la loolu toll opérateur semencier yi xam nga reen comme ni ma la waxee campagne commercialisation gerte dafa gaawoon loolu chinois ci dugg ci ak doole donc loolu moo tax ñun dañu woowoon opérateurs yi yëpp ñu def réunion ñu ne leen léegi li ci pexe pour ñu ñu am jiw Sénégal ñu ne ñu defal leen ñu notification de stock maanaam opérateur bu nekk nga yónni ko lettre nga ne ko dama bëgg yow nga wax ma ñaata tonne nga mën a stocké pour jiw ñu yónni leen loolu ñu def stock bi maanaam seulement certifié ñu stocké ci lu euh, lu lu lu toll presque soixante mille tonnes loolu la ñu stocké après semence écrémée ñu stocké ci à peu près trente mille tonnes muy muy quatre vingt dix mille léegi nag semaine passée léegi bind nañ leen bataagal pour wax leen effectivement dinañu jënd temps ku nekk ñu la jëndal temps ci sa stock ñun léegi jënd nañu semence certifiée euh, certifiée presque jënd nañ ko cinquante deux mille tonnes yi euh, def nañ contrat ak ñoom. Euh, jox nañ leen seen notification jox nañ leen seen planification pour région yi nga xam ne nawet bi foofu la njëkkee Kédougou Kolda euh, Tamba Ziguinchor donc foofu am nañu seen planning donc à partir de lundi war nañu mën a dem joxe commencé déposer jiw yi ci ci ci commission yi ñu ñu ñu seddale ko li ci des région Kaffrine ak Kaolack semaine prochaine aussi dinañ def seen planning loolu lañ koy defee ndànk-ndànk ba avant fin mai nañu diw daal fu mu waroon dem mu dem fa engrais fu mu waroon dem mu dem fa parce que nawet bi comme ni ma la waxee météo dafa ne non seulement dina nar a baax mais dafa war a teel. ñi nga xamante ni tey euh, moom mooy euh, opérateurs yi ñi yëngatu ci wàllum ceeb ak yooyu nag ndax jot nañ seen notification. Euh, comme ni ma wax notifié naa déjà dix mille tonnes ci opérateur ceeb ñooñu aussi seen planification li ko li li li ñu xaar mooy xam nga ceeb moom ala kulli aali suñu programme mooy bu ñu la notifié dañu lay yónni ay nga da nga war a dem test laboratoire sa semence parce que euh, ceeb moom amul lu certifié wul ak lu lu ñu certifié wul lépp dafa war a certifié da ngay war a dañu lay yónni ay bana ay lettre pour nga dem ci fu ñu ko war a defee nga dem tester analyser sa semence bu dee méngoo na ak li ñuy xaar ci semence certifiée boobaa ñu defal la planning ñu ne la yóbbul sa semence donc ñu ngi ci loolu mais ceeb xam nga avantage bu mu am mooy melul ni gerte. doo fa nekk di ko xolli pour nga koy kii jour bu ko demee jotee rek boo ko jotee rek mën nga dem ji ko loolu moo tax loolu mën nañ dem ba fin juillet di joxe ay semence ceeb ci du am problème. d' accord euh, monsieur le ministre sànq wax nga ko ak li nga xam ne moom la waa météo wax ne nawet bi euh, am nañ si yaakaar ne nawet bu baax lay doon. kon ren daal jàpp nga ne du ñu sukkandiku ci gerteek euh, dugub kese waaye ñebbe ji ak lu jëm ci wàllum xaal ak mboq loolu tamit euh, ndax bàyyi ngeen ko xel bu baax a baax. waaw loolu comme ni ma la waxee vingt milliards yi ñu yokkal ci suñu budget xam nga yokk nañu euh, quatre mille tonnes minimum pour jiw ceeb. gis jiw mbokk. waaw dañ koy doubler. daaw ñu ngi yoon presque mille cinq cent tonnes ren dinañ egg trois mille tonnes. ñebe tamit bëgg nañ dem ba quinze mille tonnes mille certifiés. dañu centré suñu programme. ci dunde bay dunde mooy ceeb dugub mbokk ak ñebbe ñooñu moom bëgg nañu leen doole leen doole bu bare bare bare encadré béykat yi pour ñu am ci production bu mag. Euh, jërëjëf euh, monsieur le euh, ministre Moussa Baldé léegi nag comme yow ni nga ko waxee sànq notifié nga ñi nga xamante ni ñooy opérateurs yi ci yenn gox yi nga xamante ni wala yenn région yi nga xamante ni nawet bi fa lay njëkkee ndax tamit tey dina am beneen liggéey boo ci def boo nga xam ne yow boo leen notifié rek di nga fexe ba ñoom tiim ci ni mu gën a gaawee ñu yóbbul jiw wi ñi nga xamante ni ñoom ñooy baykat yi. waaw loolu laa la wax loolu boo jotee sa planning dañu lay jox ak bu ñu la notifié bu jox la sa planning ñaari ay bés lañu la may pour nga def yóbbu ko boo ko yóbbuwul loolu jox na ma man sañ-sañ. ma jël ma dindi sa notification jox ko keneen moom mu def liggéey bi. mu def liggéey bi waaw. ah euh, est-ce que comprendre li mu la wax. comprendre naa. boo boo nekkee opérateur. waaw ma jox la sa notification ma defal la planning ma ne la yóbbu yóbbul sa gerte Kaffrine wala fii ak fee ñaari ayu bees laa la bay pour nga def ko boo ko deful am naa sañ-sañ annuler sa notification. jox ko beneen opérateur moom mu dem def liggéey bi. léegi monsieur le ministre jamono jii euh, xam nañ ne nawet bi ma ngi ma ngi door te xam nga daaw ak ren moom bokkul ndax yow liggéey bi ngay liggéey ak ñi nga àndal Covid 19 bi amul dara dara dara loo xamante ni daal dina la ko yàqal ci liggéey bi ngay def ba askan wi jot si seen jiwu ni mu waree ci nawet bi. déet gisuma nu mu ko yàqalee parce que man woo naa gouverneur yëpp laaj leen sant nañu commission yi. li ñu bëggee mooy bu ñuy nekkee ci commission nag di di joxe ak jiw ñu par ñu jël seen masque xam nga joxe jiw moom loolu warul nekk foofu ñu nekk foofu ay bés bés yu bëri yu bëri mais nañu comme ni ma la waxee ñun lu ñu wax béykat yi nañu fagaru fagaru mooy nañu respecter le ministère de la santé wax yëpp xam nga dem tool moom moom euh, mën nañu mën nañu wax foofu di ay dajale nit la ku nekk dangay ngay nekk sa tool di liggéey loolu warul am problème léegi ci béréb yoo xam ne dañuy joxe diw tamit dañuy jël suñu matuwaay wax nañ ko gars yi ñu fagaru jël seen masque buñ ñëwee jël seen semence buñ ko jëlee ñu gaaw jël ko yóbbu ko seen dëkk. d'accord léegi tamit lu jëm ci wàllum euh, matériel agricole bi loolu nag euh, fu mu toll wala joxe nañ ko ba pare. xam nga matériel agricole ñaari paj la euh, maanaam Macky bi bu mu ñëwee ba léegi joxe nañu ñaari junni tracteur ci ci Sénégal fii. loolu du ñu xaar nawet rek di ñu ko joxe loolu programme bi nga xam ne day continuer régulièrement euh, saa bu ñu amee ay tracteurs ñu notifié ko ay région wala ay producteurs ñuy jënd euh, indi seen euh, maanaam prix d'acquisition ñun ñu ñu jox leen seen tracteur matériel bu ndaw bi moom la ñuy daaw a joxe en général nawet buy buy commencé daaw joxe nañ ci lu bare bare amoon na sax ay commission yoo xam ne xaw na ci des tuuti loolu aussi ñu ngi xool fii ba fin mai nan lañ koy yokkee encore pour parce que loolu du doy jamais ñu yokkal ko encore ay quota ay béykat yi ñu ngi ci liggéey. léegi dafa am li nga xamante ni nag euh, moom mooy euh, contre saison euh, deux mille vingt bi xam nga mba maanaam mooy mbayum noor bi. fu si mel ni Casamance ak Fouta. Mhm. léegi ñooñu li ñu jot a bay euh, monsieur le ministre loolu ndax jàpp nga ne mën naa jàppale Sénégal wala mën naa euh, xeetali Sénégal lu bëree bëri euh, ci Covid 19 bi. ah waaw waaw parce que xam nga vallée du fleuve Sénégal déjà ñoom li ñu doon béy presque ñu ngi woon ci quarante cinq mille hectares daaw ren ñu ngi jógee cinquante mille. en tout ci ci statistique bi ma yor yokk nañ ko de sept pour cent par rapport à del dernière donc foofu tamit li ñu bëgg mooy euh, ñu fexe ba récolte bi mu bañ a am maanaam perte post récolte comme ça ñu góob ceeb bi ñu am yëpp ñu xeex picc yi pour ñu bañ a wàññi aussi seen seen rendement am ci rendement bu baax. sur cinquante mille tonnes bu ñu ci amee rendement bu baax loolu déjà maanaam stock bu baax la pour ceeb pour Sénégal pour année bi di ñëw. d'accord li nga xamante ni mooy mbayum noor mi monsieur le ministre gis nañ ne fi mu ne nii tey euh, yëpp euh, xam nañ njariñ li nga xamante ni euh, mbayum noor am na ko léegi tamit ban jàngat la ci état bu Sénégal war a jàngatee bu Covid 19 bi weesoo. bu président waxee pour il faut que ñu fexe ba. suñu autosuffisance ak suñu indépendance ñu am ko ci affaireu lekk mais li ci li wóor ci wóor mooy il faut que ñu am plan boo xam ne dinañu am ay aménagement yu bare bare dugal ci secteur privé bi bu baax a baax pour que Sénégal noor ak nawet mbéy mi Euh, ñu xam ne même par exemple bu taw bi manqué Sénégal war na mën a béy béy lu mu dundee loolu ñu ngi ci programme boobu ñu ngi ci liggéey. kon daal yow jàpp nga ne euh, mbay ci Sénégal bu luy weesoo dina toll foo xamante ni daal lépp lu ñu soxla maanaam dootuñu ko jëggaaniti fenn loolu moom euh, yéen a ngi si plan boo xamante ni jàpp ngeen ni mën ngeen ko réussir fii ak ñaata at ngeen ko jàpp. waaw loolu xam nga yàlla dafa daf ñu may ne ñun bu ñu par exemple Macky Sall bu moom moo ko një waxoon na ko njëlbeel yoonu yokkute déjà mbéy moo nekkoon euh, suñu programme euh, ci maanaam ci ci diggi programme bu ñu defee plan Sénégal émergent ñu teg PRACAS boo xam ne aussi ci diggi programme bi Macky Sall moom moo musa indi deux mille tracteurs Sénégal ci ci diir bu sept ans parce que depuis indépendance amuñu woon deux mille tracteurs ah depuis indépendance loolu il faut que nit ñi xam ko donc Covid bi dafa fekk mbéy Sénégal dafa développé commencé développé ba ñëpp ràññee ni Sénégal mbéyam bi mu ngi dem kanam donc Covid bi dafa doon li Macky Sall waxoon donc ñun ñu ngi jël suñu kàttalaay kattan comme que Sénégal am nañu potentialité ba am na ñu ndox am na ñu nit ñi pour liggéey je pense que jeunes yi aussi xam nga heure bii nii kenn xalaatul dem Espagne wala Italie wala feneen pour émigrer loolu mbas mi en tout cas arrêté na ko donc loolu moo tax ñu gëm ne ñun fii bu at yu néew. suñu programme bi ñu nar a tëral nii war na mun a assurer Sénégal indépendance alimentaire. Euh, monsieur ministre Sénégal nag euh, liñ fiy dégg ci mbay mooy mbayum ceeb mbayum gerte mbayum dugub ak euh, ak ñebbe mais lu jëm ci wàllum. ak mbayum dër ah. mbayum dër mi si laay ñëw xam nga soble soble pomme de terre ay carotte ak ay supame yooyu lu mel noonu tamit est-ce que waa ministère de l'agriculture et de l'équipement rural am na si programme boo xam ne liñ si doon produire jàpp nañ ne danañ ko gën a yokk. bu baax a baax ay soble tout ça loolu dafa jox Sénégal sax euh, maanaam li ñu doon exporté euh, ci avant président Macky Sall di ñëw dafa neewoon na ay dix mille vingt mille tonnes bi ma defee le point sur exportation fruits et légumes yi ñuy def ci Sénégal upp na cent mille te loolu dafay indil koom-koom réew mi ñun fokk ñu dooleel ko dooleel ko aussi gën ko dooleel léegi bokk ci loo xam ne day dundal Sénégal donc horticulture c'est au centre aussi de notre programme pour autosuffisance ak indépendance alimentaire. Euh, léegi sànq yaa ngi koy wax yaa ngi ñaax ndaw ñi pour ñu dem euh, dem ci seen région yi liggéeyi euh, ndax xam nga ne nawetub ren bi ak mbay moom Sénégal ma ngi ciy def ay jéego naam xam nañu loolu monsieur le ministre ndax mën nga jox ay garantie askan wi nga xam ne yaa ngi leen di ñaax pour ñu bay bu ñu bayee ba seen li ñu bay ñor mën nga leen jox garantie yoo xam ne li ñu bay yéen di ngeen leen taxawu moo xam leen koy jënd ba jàppale leen ba gunge leen ba nga xamante ni dina tax ñëpp am optimiste bu nawet jotee tey ñu dem bay. waaw defe naa loolu moom euh, euh, kenn mënu ko wéranti. gis nga valeur bu gerte am. kilo gerte dem na ba trois cent vingt cinq francs. trois cent cinq francs. béykat bi nee na ren la mos a gis. bu jaayee kilo gerte jaar ak kilo jënd kilo euh, maanaam euh, kilo kilo ceeb dañu delloo ko weccet wala nga jaay sa tonu gerte jënd ci quatre tonnes ciment dem dem tabax sa kër donc gerte moom ala kulli ali doole bu mu am du wàññeeku parce que ñi ko soxla comme la Chine dañ koy gën a soxla li ci des ceeb moom aussi gom nañ ne en tout cas comme duñu mën a jéggaane ceeb bu dee ceeb Sénégal rek moo am fii donc il faut que ñu jënd ko te ceeb boobu moo gën a baax ñu santé moo gën a baax suñ pour suñu économie. gisuma fii loo xam ne en tout war nañu ko mën a béy te mu làmb ci ci ci béykat bi d'autant plus que ñun ñëpp d'accord nañ ni mun na am crise bi mu laal aussi yeneen pays nga xam ne peut du mën a Sénégal bu dee am na surplus war na ko mën a exporter. léegi euh, lu jëm ci wàllum euh, wàllum semence yi suñu laaj bu mujj ci ci loolu ren daal jàpp nga ne du am benn njàmbat boo xamante ni tey euh, opérateurs yi danañ ko jàmbat du am benn njàmbat tamit boo xamante ni tey baykat yi ñoom seen bopp danañ ko mbir mi loolu moom jàpp nga ne daal danga nga si xar sa tànk tubéy waaw xam nga man daaw def naa ci jéego yu bëri dina am ñu jàmbat xam nga lu tax ñuy jàmbat yenn saa yi looy dégg ci rajo yi wala télé bi du opérateur yi nga xam ne ñu ngi ci terrain bi de dafa am ñi bëggoon nekk opérateur wala ñi doon am ci système bi ay affaire amuñu ko ñooy ñëw jàmbat béykat yi aussi yenn saa yi béykat yi ñu ngi seen nekkuñu ci rajo yi de dafa am ñoo xam ne dañuy jël seen bopp béykat te nekkuñu béykat bu ñu amul lu ñu lu ñu doon am ci système bi ñoom ñooy dem ci rajo yi di wax man li ma bëgg mooy euh, dërëm bu ñu dugal ci euh, maanaam agriculture mu dem ci agriculture béykat bi gis seen bopp euh, opérateurs yi xam xam ñu ngi leen di suivre xam nañ ne daaw par exemple li ma andi la ci notification benn gouverneur wax na ko musu ko gis depuis bu mu nekkee gouverneur ci région boobu man sama liggéey mooy en tout cas dooleel mbay Sénégal dërëm buñ ci dugal mu bañ a woon loolu mooy sama liggéey te loolu moom dinaa ko def incha allah. jërëjëf euh, monsieur le ministre mbokk yéen ngi déglu rajo mi FM seen émission pencum réew mi ñu invité euh, professeur Moussa Baldé nekk ministre de l' agriculture et de l' équipement euh, rural monsieur le ministre woppi coronavirus ji maanaam Covid 19 ci département bu département bu Kolda yow nga nekk président conseil départemental bi bi mu duggee foofu ci sa département bi yan matukaay ngeen jël foofu. foofu ak avant mu fay dugg tamit ndax jëloon ngeen ay matukaay. waaw xam nga man euh, bi ma ñibbisee France. xam nga ñibbisi le deux. jour boobu la Sénégal am premier cas. dem naa euh, Kolda. jël euh, woo sama bureau conseil départemental ñu waxtaan bi boobu affaire bi layul trop boobu laa déjà ñu def ay émission ci langue yëpp maanaam pulaar soose wolof français pour vraiment sensibiliser suñu département ak fuladu yëpp ci mbas mi ñu fagaru boobu déjà jëloon naa ay matuwaay boobu ñu ngi samp comité yi régionaux yi ñuy dooral seen liggéey may yëkk en tout cas ndimbal jokko pour ñu mën a dóor seen liggéey ñu commencé ko euh, bu loolu weesoo aussi ñun conseil départemental dañ ne léegi comme euh, mbas mi ñëw na yeneen fët yi duñ ko def dañ jël suñu ligne euh, maanaam ci euh, budget soppi ko indi ko ci jël ay maanaam ndimbal pour population yi ci Kolda jël alal jokkoo comité régional comité départementaux yi maanaam bu Médina Yoro Foulah bu Vélingara ak bu Kolda pour gën leen dimbali waxtaan ak autorité médicale yi commencé par exemple euh, di commander ay masques commandé nañu ay junni junni masques loolu boobu ñu ngi ci liggéey te yàlla def na pour le ak Kolda région Kolda ka importé rek la ñu am importé yu jóge frontière Guinée ñu ngi ñaan en tout cas mu bañ a law euh, mu yem ci cas importé yooyu. waa dégg na sànq sax médecin chef bi di wax ne sept ka yi ngeen amun foofu noonu euh, sept cas yooyu yëpp wér nañu. waaw euh, ndax tey par exemple am mbégte bu lool lool. Ah, léegi masque yooyu noonu euh, maanaam ndax tamit askan wi sensibilisation ngir ñu koy takk matukaay yooyu taxawaay boobu tamit ndax am na bu baax a baax. waaw waaw bu baax a baax suñu ndaw yi. Euh, étudiants ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi wër foofu yëpp ba maanaam kenn du war a war ci groupe nii et mais ñu ngi ci seen WhatsApp ñu ngi ci yenn groupe dañu inventé système yoo xam ne pour sensibiliser euh, rajo communautaire yi aussi ñu ngi ci euh, man gëm naa ne en tout cas heure bi Kolda du sensibilisation pour ma des Euh, gars yi dañu soxla woon masque yu bëri loolu moo tax ñu ngi commandé rek parce que à chaque fois dañuy wax ne en tout cas euh, diw euh, dëkk sangam dëkk sangam ñoom nee nañu amuñu masque ñu góorgóorlu ba ñu am ko defe naa sensibilisation bi vraiment maa ngi félicité le comité régional gouverneur moo ko jiitu ak sama xarit docteur Yaya Bal nekk chef régional bu Kolda. maanaam yéen a yéen a wut masque yi jox ko askan wi ak lu jëm si wàllum gel alcoolique ak yooyu. waaw ñun xam nga ay élus locaux bi. day def après ñun ñu ñëw euh, dooleel ko euh, même ndimbal bi nga xam ne président Macky Sall def ko jéggal askan yëpp ñun wax nañ ne euh, bu bu bu dee afaam ñu amul ñun tamit dinañ góorgóorlu en tout cas jàppale leen donc loolu moo tax ñu ne askan bi dañ def ndànk ñëpp am mais ñi amul bu nañ ni yelloo nañ ko ñun dinañu xool nan lañ leen def pour dimbali leen loolu mooy suñu rôle on est des élus locaux population moo donc lu ñu ñàkk rek ñun dimbali leen jàppale. d' accord euh, ba tey ci lu jëm ci wàllum dimbal loolu xam nga tamit euh, foofu ci Kolda am na si ñoo xamante ni mbir mi commencé na leen a laal bu paasee masque yi yi ngeen jënd jox ko askan wi loolu am solo la sensibilisation bi tamit euh, am na solo ndax am na leneen loo xamante ni génn ngeen ko moo xam xaalis la pour jàppale ko yenn secteurs yi foofu. waaw par exemple man si sama voyage yi may wax noonu gare routière xam nga dafa taxaw dafa lañ ko taj donc ñooñu dañ leen joxoon ndimbal sama voyage bi passé euh, aussi jakartamaan yi xam nga jakartamaan euh, dawutul parce que mënoo fab euh, yàpp client ñooñu aussi yëkkati woon nañu ndimbal jox leen mais yooyu yëpp xam naa doyul am na ñeneen coiffeuse yi Euh, association des coiffeuses de Kolda dañ leen euh, joxoon ndimbal mais ñu bëri bëri am na ay secteurs yu bëri affaire bi daf leen laal euh, de toutes les façons saa bu ñu fa nekkee ak tous les jours maa ngi jokkoo ak sama le bureau du conseil départemental xool lan lañ mën a def ci jour boobu chaque jour dañuy def dara. mais su dee personnel euh, kii bi nag ñi nga xam ne ñooy médecins yi agent de santé yeeg yooyu ndax ñooñu tamit euh, yaa ngi bàyyi xel comme yow yaay président conseil départemental bi ndax am nañ ay jumtukaay yu doy ak yooyu ndax yaa ngi leen di suivre. oui mais médecin chef régional ñu ngi jokkoo régulièrement ak directeur régional bu Kolda xam nga foofu foofu la ñu am centre bi pour mun a euh, recevoir malade Covid 19 yàlla def na sax région Kolda am nañu léegi. foofu possibilité tester foofu la ñuy tester nit ñi euh, loolu moo tax euh, nguur gi en tout cas moo ngi jël na matukaay yu bëri pour vraiment aar personnel médical euh, defe naa am nañu ndàmpaay et tout ça c'est normal parce que heure bi ñu ngi ci xeex bi vraiment ils sont au front comme des militaires donc loolu moo tax ñun aussi dañuy gunge médecin chef régional bi moom mooy su mooy mooy expert bi maanaam moo ñuy wax ne vraiment soxla nañ dimbal mais côté bi côté bi loolu moo tax man dama ci ñun dañ ciy mandu euh, dañu nekk ci ginnaaw comité régional bi ak médecin chef régional bi ak experts yi euh, bu ñu waxee ne daal dimbal bi fii la gën a mën a baax ñu ñu jéem ko yóbbu. waaw dañoo gis tamit euh, marché bi nga xamante ni mooy marché Diaobé sous raison bi ñu baree bari doon fooy ñëw te gis nañ ne tëj nañ marché bi euh, lu jëm ci wàllum koom tamit ndax jàpp ne tëj giñ ñu ko tëj ginnaaw Covid 19 bi dina am jeexital euh, ci économie ñi nekk ci ci région de Kolda. waaw waaw mais xam nga de toutes les façons Covid 19 comme li ma la waxee. baril pétrole dañ ko doon maye yàggul euh, dans il y une semaine la dañu doon maye baril pétrole maye donc économie mondiale bi lañu affecté loolu amul kenn fii ci àdduna bi nga foog ne euh, Covid 19 du laal sa économie donc day laal adduna bi day laal Europe laal Sénégal dina laal Diaobé dina laal laal euh, village yeneen village Kolda yi loolu lu à la la tëj nañu marché Diaobé mais tëj nañu sax yeneen marché ci frontière bi yëpp quoi donc économie bi yëpp moo am problème boobu mooy fexe ba vraiment euh, mën a am résistance bu baax pour que Covid bi bu jeexee ñu euh, suñu économie euh, en tout cas nekkaat ci yoonu croissance loolu moo tax président Macky Sall teg plan de résilience plan de résilience boobu gëm nañ ne en tout cas war na mën a tenir choc bi pour que suñu économie nekkaat une économie de croissance euh, bi Covid bi passé. waaw euh, plan de résilience boobu sax si la ñuy wax force Covid 19 bi gis nañ ne euh, xaalis bi nga xamante ni tey moom maanaam moom moom moom lañ dajalee ngir saafara si jafe-jafe yi nga xamante ni Covid bi indi na ko am na benn comité de suivi boo xamante ni général François Ndiaye moo ko jiite nan nga gisee comité boobu. waaw mais loolu lu normal la on met mille milliards président une gestion transparente du comité euh, président de la république bi mbas mi ñëwee ba léegi dafa woo vraiment à l'unité nationale woo toutes les forces vives du pays pour que ñu mën a nekk benn ñu li ñu xeex euh, mbas mi loolu moo tax lu mu ci def nag dafa bëgg ñëpp xam ne ñu ngi gis seen biir euh, gis nañ seen bopp ci biir loolu moo tax ñu def comité boobu nga am ne toutes les forces vives son représentées ñu mën a saytu affaire bi nu demee comme euh, on est donc dañu war a nekk ci loo xam ne am waruñu am xiiroo ak ngaayoo. li nga xamante ni nag moom lañ wax ne moom la ñuy jënd ci dund 69 milliards ndax jàpp nga ne loolu euh, doy na wala jàpp nga ne lu ñu war a yokk la. xam nga dund euh, euh, ci euh, comme ni ñu nekk ni doy mënoo wax ne doy na mais musul am cent quarante mille tonnes ceeb nga jokko pour un million cinq ku nekk nga am cent kilos ceeb man de ci sama man xale la mais loolu musuma ko gis Sénégal ñu yokkal la ci diwlin ñu yokkal la ci vraiment aussi pat donc loolu vraiment gëm nañ ni dimbal bu rey la déjà c'est extrêmement important li ñu def c'est c'est vraiment ñu ngi saluer générosité président Macky sal bi mu am te xam naa dina ut yeneen pexe pour que mu amee problème pour mu gën a dimbal ak seen euh, d'accord euh, fi nga xam ne mooy département bu Kolda ndax ndimbal li euh, ñëwagul na fa ak tamit ndax teg ngeen benn commission boo xamante ni maanaam moom moo koy saytu. oui oui c'est commission bi ministère bi yor wàllu affaire bi. moom moo tëral vraiment ni ñu koy séddale dafa am comité départemental communal et cetera ciblage bi gars yi def nañ ko maa ngi jokkoo ak maire département yëpp ñu ne ma ciblage bi pare nañ ci ndimbal bi commencé na yegg si bu bu bu bu yegsee bu lépp yegsee rek xam na euh, séddale bi day gaaw. Euh, li nga xamante ni tamit euh, mooy dañoo gis na président Macky Sall wax na ko ci conseil des ministres bi xam naa ne yëngoo ko ndax participer nga ci muy ñi nga xamante ni tey ñooy ñooy bañ a wàccoo ak état d'urgence bi moo xam ci wàllum commerce wala transport wala ñi nekk ci lieux publics yi daal di wax ne ñi nga xam ne nanguwuñu ko respecté na yoon a dal ci seen kaw yow lan moo ci sa xalaat ndax xam nga ne Kolda ak euh, fi mu nekk euh, nit ñi mën nañ di dugg foofu ak génn dem si région yooyu loolu yow lan moo ci sa xalaat ak tamit ndax yéen a ngi ci bàyyi xel. waaw ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax maa ngi féliciter d'ailleurs euh, la gendarmerie au niveau de la région de la région de Kolda le commandant et tous ses hommes parce que foofu vraiment gis nañ ni dafa am ay attaques yu bari quoi maanaam li may tuddee di jël xaalis pour mën a dugal ay nit yi nga xam ne dañu tukki woon pour ñu ñëwaat ci ci Sénégal loolu moo tax xam nga problème bi mooy président wax na dëgg pour vraiment dëgëral mesures yi parce que xam nga heure bi Sénégal ñun ñëpp suñu économie dafa taxaw imagine toi heure bi euh, Ramadan bi nga xam ne euh, weer boo xam ne weer de générosité bi nga xam ne euh, weer de solidarité kenn presque mënul dem ci kër mormam pour nga xaar fa ndogu wala nga mën donc liggéey boobu yëpp ak métti métti bi mu jural Sénégal mënuñu nangu benn nit ci taganam wala ci zomafoutisme moom mu yàq liggéey bi yëpp maanaam duñu liggéey ba sonn euh, tere doomu aadama yi ñu génn ak loolu li ñu jural ci problème yëpp moo xam ne moom euh, maanaam euh, sans sans fu lay def jóge fii yóbbu ko feneen gën a tasaare affaire bi gis ngeen ni par exemple problème Covid 19 mooy yow boo ko amee nga dem bërëb sangam. région boobu en sans contact sans contact yooyu déjà ñu amaat yeneen sans contact affaire bi dañ ko war a dëgëral ñëpp xam nañ ni lii dëgër la. waaw mais euh, monsieur ministre cas communautaire yi tamit euh, gis nañ ne ma ngi yokk ci Sénégal bu baax a baax ba yenn si médecins yi sax ñoom am nañ ci ak tiitaange ndax yow tamit loolu euh, yaa ngi si defub njàngat wala li dal médecins yi ñoo la moo la dal. oui non mais xam nga Sénégal dañu am quand ay expertise bu baax waa ministère de santé de la santé. ñu ngi suivre affaire bi bu baax a baax gëm nañ ni ka communautaire euh, en tout cas c'est vrai day yokk euh, yenn saa yi mu yokk yenn saa mu wàññeeku donc ñoom xam naa ñu ngi koy suivre mais loolu mënul am cas communautaire mooy ma mën a nekk loo xam ne aussi euh, mu am koo xam ne dañ ko dafa am maladie bi ñu laaj ko contact xam bi mu fàtte kenn loolu mën na am xam nga yooyu mooy jul yooyu donc mais gëm nañ ne li ñu bëgg a mën a wax mooy Sénégal am nañu expertise médicale euh, ministère de santé organisation bu mu tëj gëm nañ ni en tout cas ñu ngi seetlu bu baax a baax te incha allah dinañ trouver solution pour endiguer maladie bi ci suñu réew. yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi ñu invité euh, ministre euh, Moussa Baldé yor wàllum euh, mbay mi ci Sénégal ak wàllum équipement rural monsieur le ministre fan yi ñu dé jàll dégg nañ président Macky Sall ak yenn ci ay chef de l'État ci Afrique ngir ñu man ngir ñu sàkku ñu bal leen li nga xam ne maanaam moom mooy moom mooy dette bi loolu yow lan moo ci sa xalaat ndax tamit jàpp nga ne dina yomb waaw dina yomb xaw ma ko mais en tout cas xalaat bu baax la bi Macky Sall am euh, moom en tant que président du Sénégal nekkoon na fi aussi euh, président du NEPAD Euh, et cetera boo koy co-présider suñu le truc Sine Afrique euh, loolu yëpp jox nañ ko en tout cas sañ-sañ bi nga xam ne au nom de la communauté internationale de l'Afrique en tout cas euh, mu xeex pour dimba mu mu mu am xalaat en tout cas jëmbal que pays riche pour ñu mën a dimbali Afrique du Sénégal kese moom en tant que président de la République non seulement président de la République mais leader africain la donc loolu dañu koy rafetlu euh, gëm nañ ni war na ci mën a am ndam am na ñu bëri dugg nañ ci di ko jàppal euh, gëm nañ aussi loolu lu war a nekk la parce que euh, dette bi c'est vrai boo lebee da nga war a fay. boo lebee da nga war a fay d'accord mais. boo gisee situation bi ñu nekk nii au niveau international solidarité moo war a solidarité boobu loolu la makki sal di woote li mu woote mooy Euh, vraiment que communauté internationale bi ñu comprendre ne situation bi nga xam ne pays africain yi fu ñu nekk pour ñu effacer ñu suñu dette ñun tamit ñu nooy suñu euh, économie bi nooy pour que ñu mën a vraiment euh, liggéey. léegi euh, monsieur le ministre ci li nga xamante ni tey mooy aide aide alimentaire bi gis nañ am na ñu bëree bëri gañe nañu ay marché ndax yow ñi nga xamante ni tey ñoo yëngatu ci production locale bi ndax ñooñu jàpp gis nañ ci seen bopp ndax xam nga bokk na ci lu leen di ñaax ëllëg ñi nga xam ne ñooy def production locale boo leen jàppalee ñu bokk si ñi gagné yooyu loolu dina leen gën may doole te dina gën a mën a ñaax nit nit ñi tamit ñu ñu nekk ci ndax ñoom eh, jàpp nga ne danañ ci gis nañ si seen bopp moo xam ci eh, ci ceeb bi la wala suukar si. non bon production locale sucre sa man man ma ci wax mais am naa ni ceeb pour ceeb bi li ñu wax mooy dañu xayma woon vallée du Sénégal. temps yooyu euh, stock bi c'était cent mille tonnes yañ décortiqué woon mais jaayoon nañ déjà quarante mille yi mu des dix mille xam nga loolu par rapport à nguur gi li mu soxloon yëpp euh, c'était pas assez important parce que maanaam xam nga léegi ceebu ceebu local bi mu ngi jar de gars yi dañ koy dañ koy dañ koy transformer rek di ko jaay donc loolu moo tax yaay pas un stock important pour ñu mën a def commande boobu mais li ci des mooy mooy gëm naa ne en tout cas euh, président bu joxee suñu mbéy bi doole euh, mais loolu moo tax bëgg na aussi que ñu consommer local moom il a appelé à consommer local il a appelé à consommer euh, sénégalais bu ñu naree produire Euh, incha allah en tout cas mbéyum Sénégal bu bu dee def na production bu baax a baax war nañu ko mën a jaay fii euh, ñu ñu ñu jëriñoo ko. d' accord léegi suñu mujjantalu laaj euh, monsieur le ministre mooy yow yaa nekk ministre de l' agriculture bi mbas mi commencé ba léegi ñu bari li ñuy wax ne li ñuy wax. Hmm. mooy Sénégal lim ci war a gën a jàngatee. mooy hmm. góorgóorlu ci li nga xamante ni mooy production locale maanaam ci mbay mi ba nga xam ne bu ëllëgee si biir. dootuñu xalaat dara li ñu bay ci réew mi mën nañu ko dundee moo xam mbayum dër mi la moo xam euh, meneen meneen mbay mi euh, ndax tey comme ni nga ko wax sànq ndax yow nee nga lii euh, unité nationale la war a nekk pour maanaam dootuñu jëggaaneeti ci feneen dara ndax yow tamit en hmm. tant que ministre en tant que doomu réew mi loolu loo bàyyi xel la waaw comme li ma la waxee rek loolu dañ ci war a def unité nationale xam nga lu tax xam nga dëkk yu bëri boo xoolee même Inde Inde bu ñu doon def seen révolution vert dafa am lu leen daaloon dal dal bu métti maanaam ay defe naa xiif moo fa amoon euh, ñu ñu am vraiment euh, un programme boo xam ne ñëpp dugg ci dañ mun am seen révolution verte ba léegi ñuy jaay ceeb dafa am ay sujets yoo xam ne dañ ci war a am unité nationale waruñu nekk fii pour des raisons politiciennes di nga ñi lii di nga ñi laa autosuffisance alimentaire loolu nécessité absolue la dañ ko war a am balaa ngay nekk fii di critiquer da ngay jéem a indi idée nga ne en tout cas buñ ko defee nii defe naa foofu lay gën a gaaw loolu la ñu war a def wala nekk fii di ŋaññi def nii di def laa donc loolu moo tax euh, président de la république yàlla def na moom daf ko tegoon ba pare te ñu def ci jéego yu bëri production ceeb ñu ngi ko fekkoon ci trois cent mille tonnes indi nañ ko ba mu ëpp un million de tonnes fukki nañu leen mu jàll un million cinq cent loolu mooy un million. cinq cent mille tonnes bëgg nañu bii récolte bii di ñëw ñu passé léegi euh, waxtu bi jeex na euh, yan kàddu ngay dénkaane nag euh, waa Sénégal en tant que ministre de la République waaye tamit waa fulaadu en tant que président conseil départemental ci lu jëm nag ci mesure barrières yi ak maanaam li nga xamante ni moom la waa kër docteur wax ñu wàccoo ak moom respecté ko. waaw jërëjëf li may wax rek mooy xam nga mbas mi gis nañ ne dafa law ci àdduna bi yëpp. ay dëkk yu mag yoo xam ne ñun foofu la ñu yaakaaroon ci affaire foog ne ñoom ñoo ñu raw ci science ci médecine et euh, ñoom ñoo ci gën a sonn finalement. donc comme mbas mi moom du comme paludisme am nga maanaam biiru moom euh, parasite bi yooyu moo koy transporté te am nga yow moom mënoo ko defal programme mënoo ko wax tey bu fi jaar bul dem fi mais bii moom dafa am benn chance bi ñu ci am mooy nit rek moo ko mën a wàll moromam donc loolu moo nag comme que nit rek moo ko mën a wàllu moromam donc yedd nit ñi éduqué euh, ci suñu suñu comportement lañ ko mën a reyee parce que amul euh, amul actuellement garab bu koy faj amul vaccin donc comportement société bi rek moo ko mën a arrêté loolu moo tax nag dañuy gën a vraiment wax population bi euh, suñu médecins yi suñu experts yi te de vrais experts xam nañu li ñuy wax léegi buñ ñu vraiment joxe ay ndigal ñu topp ko suñu comportement moom moo mun a arrêté mbas mi du leneen donc am comportement yoo xam ne méngoo ak ministère bi wax pour que ñu mën a arrêter euh, kii mbas mi le plus euh, loolu rek laa leen di digal. jërëjëf euh, monsieur le ministre kon mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi doon déglu rajo Rewmi FM ñu leen di sant bu baax di leen di gërëm ñoo ngi invité woon nag ministre Moussa Baldé yor wàllum mbay mi ci Sénégal moom lañ doon waxtaanal di am mbégteeg kontaante bu baax a baax ci moom di rafetlu tamit ab liggéeyam Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci micro bi du Diawo jàll nekkoon ci wàllu xarale gi ñu leen di jox di allah jërë ngeen jëf jàmm ak